suuf si àdduna na bëri na donc agriculture bi mbay mi dañ ci dox lu bëree bëri bari wan na ma ne Sénégal buñ ko buggee liggéey il faut que ñu liggéey ci mbay mi mbay mi mooy li tax suuxali Sénégal suba donc li ma waxoon laa dellu rek budget bi dinañ ko yokk 15 pour cent ci mbay bi jox baykat yi jiw jox leen engrais jox leen matériel pour que fii ci Panaay comme ci Fouta ci Sénégal ñuy bay di dundee may wax ne bis ma faloo Fanaay Fuuta dina bokk ci dëkk yi gën a développé ci Sénégal incha allah. dinaa fi def xaalis bu bëri wàllu mbay mi waa sàmm gi dinañ fexe ba sàmm gi màngaane mi dootul amati ñu jox leen ay jiw animaux yi lu ñu lekk ba nga xame ne at bi yëpp dañuy wéer am li ñu lekk nga xamee ne Sénégal aussi lépp lu ñu soxla ci ndawal ak ci meew. dañ koy am géej gi ku wax Sénégal wax Saint-Louis wax géej gi géej gi dinañ fexe ba nga xamee ne également y aura un pour que cultivateurs pêcheurs yi ñu mën a di am li ñu bëgg ci ci jën yi Sénégal di ci ci bëgg donc ma ne bay bi agriculture bi sàmm gi napp gi dinañ ko yokk bu baax a baax li ma bëgg mooy Sénégal nañ jàpp ne su ma faloo ku xiif di nga lekk ku mar di nga naan loo bëgg si bay ci liggéey dinañ ko am fii ci Sénégal man Sénégal laa gëm Fuuta laa gëm man man région yi laa ndax li ma gis fii doy na doy na sëkk vive professeur Daouda Ndiaye man kontaan naa sama xol sedd na li wax mooy fii ci fanaay fanaay dinaa fi def incha allah hôpital boo xamee ne day bokk ci ëpp doole ci Afrique ku mel ni Magna Magna Manhã. Merci, merci, jërëjëf. jërëjëf jërëjëf